conseil des ministres àllarba bi passé 5 août 2020 ak réunion bi président de la république moom ci boppam jiite muy euh, CNGE mooy comité bi géré donc euh, affaire épidémie bi mu ger mu def ko démb président joxe ci ay direction yu leer ay ndogal ci li ñuy jël ay décision avec effet immédiat bi ci njëkk mooy tere nañ bépp rassemblement ci li ñuy wax plage maanaam ci tefes gi ku nekk gis na rawatina ci période tàngaay bi ni fa nit ñi di demee si rawatina nag ci Ndakaaru waaye fépp la fépp lañ ko lañ ko tere tere nañu également rassemblement ci terrain sport yi ci espace public yi ak ci salle de spectacle effet immédiat maanaam buñ ko waxee dafay dogal bi day dal di dog tere nañu également toute manifestation sur la voie publique mooy maanaam procession yi ñuy def yëpp ci voie publique bi réunion yeeg ngénte yi nga xam ne day génn ba ci mbedd yi nga xam ne day génn ba ci yooyu yëpp tere nañ ko à parti de maintenant rawatina nag ci région Dakar ndax niveau feebar bi fi mu ci toll. wax nañ également port obligatoire de masque maanaam takk masque amul duñ ci luñ ci négocier ak lu ñu ciy laam-laame ci boo duggee ci say bureau boo nekkee ci service administration wala service privé fépp koo xam ne fii mbooloo dafay dugg ku fa dugg ku ne nekkoo yow dong war ngaa def sa masque. ci commerce yi maanaam marché yi ak bitig yi ni ñi dugg également ku fa dugg ku ne. parce que takk sa masque moo lay aar mooy aar ki nga xam ne kii moom ngay jàkkaarloo ci transport yi rawatina transport en commun muy taxi muy bus muy car njaga njaay ak lépp lu mu ci mënti tudd takk masque bi obligatoire la ministre de transport moom aussi jëloon na arrêté wax ne kenn dootu surcharge oto yi maanaam oto yi nga xam ne ay car lañ dina am ay place yi nga xam ne ñi dañ ciy taxaw donc arrêté yooyu dañ ko wax nañ police ak gendarmerie ñu respecter ko scrupuleusement rawatina également ci nombre de places yi nga xam ni moom lañ permettre ci transport en commun yi ñuy wax taxi taxi euh, taxi euh, que ça soit clando wala yeneen taxi képp ku ci violé disposition yooyu ñu jël yoon dana la daan yoon nag li mu daan am na amende code de contraventions dem na sax ba tëj kaso am na ci tey ci suba waxtaan nañ ak directeur police ak haut commandant de la gendarmerie pour que ñu jël disposition yëpp pour que contravention yooyu comme ni leen ko yoon permettre ñoom ñu mën ko appliquer. bëggoon nañu wax nag gannaaw jàkkaarloo bi tey que jël nañ suñuy matuwaay waxtaan nañ ak police waxtaan nañ ak gendarmerie pour que ñu mën a jël seen disposition ñu ngi leen di féliciter au passage ci liggéey bu am solo bi nga xam ne bii liggéey nañ ko. bi nga xamee ne bii rawatina ci période couvre-feu te ñu ngi koy continuer ndax barki démb rek police nee na euh, verbaliser nañ lu ëpp huit cent personnes yoo xam ne nekk yoon di takk masque parce que kenn ku ci nekk xam ne réew mi réew yoon la yoon moo ci dox